Alors, c'est Mamadou Thiam, secrétaire général de UJTLS. Euh, Mamadou Thiam politique bi fi mu ne li ko lëmbee mooy affaire constitution bi ak surtout mandat bi nga xam ni Macky dafa maintenir sept ans yi yéen lan moo ci seen position. waaw seen position mooy dañ ci am euh, d'abord mbetteel am si également njàqare mbetteel bi mooy mënuñu mus a njort ni suñ ku doy ni président de la république dina euh, wax ak askanam. ba mu neex ko mu daal ci dellu ginnaaw boobu mooy mbetteel bi njàqare bi également mooy tey fan lañ jëm ak suñuy suñuy doom parce que lu doy ni institution mu président de la bi bu mu mënee wax pare dellu ci ginnaaw du ut ay lay yu doy ni avis tout simplement boo xam ni euh, conseil constitutionnel moo ko joxe loolu mooy njaxare gi nga xam ne également am nañ ko ci loolu vraiment c'est décevant parce que avis musta lié président de la République deuxième élément président dafa wax Sénégal wax ko biir réew mi wax ko bitim réew wax ko fépp foo xamante ni vraiment ay kilifa fa ak ay institution ba ñu remercier ko ba ñu féliciter ko donc bu dee see delluwaat ci loolu ginnaaw ñun vraiment dañuy tiit ci suñu réew dañuy tiit ki nga xam moo jiite suñu réew tey boobu mooy njàqar bi nga xam ne am nañ ko ci. parce que bu fekkente ni da nga ni woon dangay ngay wàññi sa mandat yàlla def nga am ñaari voix ñu koy fàttali ni ko euh, conseil constitutionnel relative en 1992 dafa am benn loi boo xam loi organique boo xam moo modifié Euh, euh, moo créé euh, conseil constitutionnel mu am ñaari compétence compétence bu njëkk bi mooy compétence juridictionnelle ak benn compétence bi nga xamante ni moom mooy compétence bi koy permettre mu mu joxe avis n'est-ce pas donc bu fekkente ni tey mu joxe décision je veux dire compétence juridictionnelle moo koy permettre mu joxe mu joxe décision benn bi moo koy permettre mu joxe avis tout simplement kañ lay joxe décision bu fekkee dafa am litige. je pense que fii amul bu baax le conseil conseil day joxe benn décision day décider maintenant bu fekkante ni dafa bëgg a laaj rek euh, baatu askan mi dafa le peuple est souverain moo waroon moom mu def mu soit dañu am ñaari voix voix référendum bi wala ah, mu jaar ko assemblée nationale parce que dafa am loi euh, article neuf cinquante et boo xam moo koy may mu saisir. ne serait-ce que pour avis le conseil constitutionnel comme ni mu ñu ko waxoon ci déclaration 31 décembre euh, janvier 31 euh, décembre bi nga xam ne mooy deux mille euh, deux mille quinze kon loolu lañ doon avis lañ doon xaar ci moom benn benn problème bi ñu ci amaat mooy daf ni woon day saisir président assemblée nationale ak conseil constitutionnel tey ba tey ma wax yooyu ñun xamuñu lan mooy avis président assemblée nationale donc mu mel ni président day dafa am jafe pour xam lan mooy décision ak lan mooy avis kon a leeral intellectuel bi war a wax ni président de la République lii ñu ko jox du dara lu dul avis te avis defe naan ci ginnaaw tuuti on gis ngeen fi ONU joxe avis par rapport ak problème euh, le frère Karim suñu candidat mu jël ni loolu simple avis la donc du ci du ci sonal boppam te defe naa lu may lu du looy ni euh, ONU institution bu mag la bu regrouper vraiment tous les pays du monde bu fekk yaakaar naa Sénégal ëpp ko doole buñ delluwaatee ginnaaw. ku ne yëg na kaaw les six cent maîtres élèves yi nga xamante ni yaakaar naa cour suprême ñoo joxe woon décision mais fàttali décision moo ëpp doole foofu avis dafa ñi ministre de l'éducation maa ngi lay jàppale ci ñàkk respecté bi nga xam ne yaa ngi koy ñàkk respecté décision boobu kon dañu gis ni bu ko neexee mu respecter fii avis bu ko neexee fële mu ne du ko respecté bu dee décision la sax te doonte du décision malgré il a trahi le peuple parce que dans son discours il a de décision alors qu'il s'agit d'un simple avis nee na ñoom dañ ko jox décision comme quoi mënta wàññi mandaam bi nga xam moo nekk en cours kon ñu ngi koy défier ne ko c'est faux parce que conséquence mu sox loolu te même bu loolu amoon benn cas de figure les cinq sages dañoo def lu ñu tuddee par jour parce que mënuñ la saisir pour un avis ngay joxe décision kooku je pense intellectuel war nañ ci wax mais mu mel ni ñun dara bett ñu parce que boo seetloo amoon na ay prémices boo seetloo maa lay fàttali imam de la grande mosquée de mus na fi wax ni président da koy demandé mu joxe xam nga xam ni président waa président ñoo lay fay sa say say say say eh, na bi mu lu ñu xamoon nañ fan la jugee grand sëriñ de Dakar également ba fàttali ko récemment def na sorte bu mel am na yeneen sëriñ yoo xam ni par respect dañuy bëgg a teer seen tur defoon nañ fi ay sorte yoo xam yooyu yëpp ay prémices la woon yoo xam te ñoom ñoo doon joxe des signes avant coureur kon ñun dara bettuñu si mi ngi doon préparé wax waa xeet bi troisième et dernier élément bi mooy président musul joxe datu élection loolu rek doy na sëkk pour ñëpp xam ne kii mosut a jël décision dem élection présidentielle mais defe naa bu ñu jógee ci élection lendemain bi rek ku ne wat dans un pays euh, boo xam ne am na démocratie un pays qui se respecte war nañ xam yan mooy prochaine élection yi waaw. Euh, léegi ginnaaw poñ boobu génn na ci naka ngeen gisee référendum référendum bi ak ban taxawaay la ci nit ñi war a taxaw. très bien référendum bi d' abord pour ñun dafa waroon nekk réponse bi nga xam war nañ ko jox peuple war nañ ko jox benn réponse réponse bi mooy boo seetloo ñun suñu parti def ni dañuy bàyyi peuple dañu koy bàyyi ak population bi ak intellectuel yi ak syndicaliste yi ñu jox ko réponse bu mu mérito parce que bu la nit waxee lu dul dëgg da nga ko war a sanctionné sanctionné bi man pour man sama xalaat mooy ñu dem voter massivement non wan ni ko yow gëmatuñ sa wax dara parce que gi nga nit bu fekkente ne wax na la wax na lu dul dëgg benn yoon xaar ko mu ñaar parce que daprès après li mu fi wax yëpp ñëpp gëm ko ba ay ñu faral ak moom leen président du mës a changé waxam du ci mës a dellu malgré discours yi ñu ci déggee mu dellu ci ginnaaw kon kii bu mën nañ taxaw xaar ni mën a def troisième mandat bu ñu nee wii mooy bii day doon sept ñu kon danaan kon yii bokk ci woon maa ngi war a amaat droit ñeen ñaari mandat yu juróomi kon foofu la ñuy woo Sénégal la ñu def ci attention fi ñu leen di woote également ñu xippi seen bët Obama dafa fii laaj ndax mbirum góor jigéen mu ne journaliste ndax mbirum góor jigéen mu ne pareegul jàpp leen ne bu ko nee wii kon mooy pare na tontu boobu lay xaar pour ñu Sénégal ñun ñu pare parce que ku parewul woon mu indi ay réforme rapidement bu ngeen fàttee heure bu génnee ñëw day wax ci affaire jigéen naa leen da leen bàyyi seen affaire liberté bu leen kenn laal en tout cas kenn du bund xatal ci référendum bi tënk nañ ci ay point yoo xam mi ngi wax ay restriction de liberté ak yooyu ay ay laïcité kon bu ñu def attention mooy boo nee wii képp ko voté wii Sénégal fii daganal nga góor jigéen ba mu boo xamul permettre nga également mu am kanda parce que am na kanda individuel permettre nga góor jigéen ñëw fi ëpp xaalis tey ñu ñëw kanda candidat individuel pour ñoo briguer suñu suffrage di nga permettre yoo xam ne yoo xamuloo kon li gën a wóor ñu ne ko non ba mu dem ñu dajalawaat ñëpp yaa ngi dégg defar suñu constitution boo xam day dëgër mais buñ ko xalaat ci Macky Sall moom. Euh, pour noo boobu gën a dëgër euh, lan moo war a nekk taxawaayu opposition bi. très bien man li may conseillé day wax naa ko wax naa ko réunion récemment si euh, UGTEL mooy ñu def ay campagne de sensibilisation leeral quatorze points yi benn par point population mu dëgg si ñoom ci kàll kàllaama wolof ñëpp mu dugg seen bopp cest à wax leen point bu nekk lan moo ci làmb boobu mooy premier élément de am am ay caravane ñu unir les forces société civile syndicaliste enseignant parti politique opposition ñëpp ñoo xamante ni vraiment ñu ngi ci ci yëngu ci lendemain ñu ñu ñu ñu ñu ñu teer lépp loo xam mooy coloration politique jël lan intérêt popula population bi ak intérêt peuple bi ñun ñëpp ñu dajaloo def caravane sensibiliser population pour près sanctionner Macky Sall wan ni ko malgré ñun ñu la ñi la voté woon nga nga nga nga wor ñu nga trahir ñu ñun aussi lii leen lay wane suñu ni c'est la meilleure façon de montrer suñu suñu suñu naqar loolu moom laa gis ni moom rek mooy solution pour ñu mën ko wane nii vraiment tooñ bi ñu def lii la mérito comme réponse am na tam benn débat bu ñu fi souligné woon te boobu dafa leen a laal yéen tamit muy problème bi nationalité bi mais yéen lan moo ci seen gis-gis. xam nga boobu ñëpp wax nañ ni c'est un faux débat parce que xam nga ñu leeral nañ ko fépp bu fekkente ni doomu aadama dafa am ñaari droit yu am muy jus sanguinis ak jus soli jus sanguinis mooy droit de sang jus soli mooy droit de de sol sa à bu fekkente ni doomu adama bi yàlla nga am soxna mu doon tubaab donc kooku ne sees ko pour sa yaay jooju tax na nga mën a am beneen nationalité. n'est-ce donc bu jëlee kaaw ma kaaru kaaw Karim Wade boo seetloo moom Abdoulaye Wade mooy papaam euh, Viviane Were mooy yaayam Viviane Were française la kon forcément day am euh, ñaari nationalité mais loolu c'est un faux débat dans la mesure où constitution daf ne la pour être président de la République au Sénégal il faut être euh, exclusivement sénégalais donc bu paree ci xeexam bi muy xeex ak mais li muy def rek day renoncer benn nationalité je pense que c'est de polichinelle jarul sax ñu ciy débattre kooku vraiment ñiy def sëy nañ ko comme ñaar la pour nga mën a jàll ku ne xam na sax boo nekkoon équipe nationale bitim réew bëgg ñëw football sa biir réew da ngay bàyyi benn bi rek ñëw jël sa bi loolu c'est c'est vite fait vraiment y a pas péril en la jarul débat dañ ko defoon pour suul lii nga xam ne moom lañ doon waaj defal moo taxoon ñu soulever débat boobu mais ñoom yàgg nañ ko xam te musuñ wax xam nga dafa am lu ñuy wax nationalité provoquée ak nationalité boo xam ni moom mooy provoqué doomu aadama bi national bi nga xamante ni moo provoqué doomu aadama mooy ki nga xamante ni moo def naturellement ay parents bokku nationalité mooy kaaw Karim Wade am nationalité boo xam ni c'est l'homme qui provoque sa nationalité mooy kaaw ministre de l'intérieur bërki démb ku ne yëg na jabaram dem wasi ni bitim réew mooy kaaw Macky Sall ak ay doom yi jàng bitim réew juddoo fa États-Unis am kër Houston donc loolu am am green nekk national mënu ko am ñoom ñoo ko provoqué c'est différent ak ñi nga xam c'est la nature qui tey boo doon génne Eh, ñi nga xamante ne am nañ nationalité fii nii eh, ñi fi def du bëri du fi bëri du du bëri donc je pense que c' est un faux c' est un mooy ñoom nan la ñuy nan la ñuy nan la ñuy restaurer suñu doom yi ay valeur gis nga fi kaaw Lamine Diack c' est une honte pour la république gis nga fi kaaw wax waxetu Macky Sall bi c' est honte pour la république gis nga fi ka yu bëree bëri ay nit ñoo xam ne ay nit de valeur la ñu woon ku mel ni Abdou Latif Coulibaly ku mel ni Moubarak Moubarak Lo beaucoup de gens ay Penda Mbow tey vraiment la république euh, le peuple. ne ñu ngi souffrir parce que tey ñi ngeen doon taxaw di leen xaasa seen dëgg ñi nga xam ñoo doon waxal seen yu mel ni bu mosaan am ñi nga xam ñoo leen daan gën a dégg tey ñëpp ñoo dem blanco du côté de l'État au détriment de de di di di di peuple donc vraiment loolu mooy débat bi nga xam ne aujourd'hui moo am solo. sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mooy woo woo woo bépp koo xam ni jeunesse jeunesse nga jeune nga pour ñu takkuwaat fexe. changer li nga xamante ni moo am ci ci dëkk bi parce que tey li fi am doy na waar mag ñu bëri jaay nañ seen ngor ndax politique ñu bëri ñàkk nañu également euh, dignité ndax ndax ndax pouvoir kon ñun jeunes yi rek ñoo war a góor góor fexe euh, restaurer la liberté restaurer lu ñuy wax crédibilité fexe fi am lu ñuy wax éthique fexe fi am déontologie fexe fi am loo xam ne vraiment mooy discipline ak lépp loo xam moo mun a jox euh, yar suñu doom yi moo mun a jërmale également réew mi ci kanam moo doon maa ngi sant ñëpp leen gërëm demander une forte mobilisation pour vraiment la victoire de non au soir du 20 mars 2016 je vous remercie merci beaucoup